ginnaaw nuyoo bi euh, ñu sant leen bu baax a baax ànd beeg Aladji Malick TV am na solo lool ànd boobee yàlla na jëm kanam tey ji gone yi tàggatu tàggatu goo xam ni moom la ñu ginnaaw ba nga xamee ni bii mooy dernier bi bala ñoo football li nga xam ni moo nekk huitième de finale ba nga xam ni gone Sénégal war nañ koo def ñu leen di ñaan it ngeen continuer def seeni abonnement ci TikTok bi YouTube ba nag bu leen ko fàtte da ngeen di burung lu ndànk. ci li nga xam ne mooy profil bi jaar noo ne dem ci youtube abone foofee xibaar yi comme mbàccum gerte Idrissa Gana Gueye wane yoon yoon woo xam ni wu sedd guy la xol bu sedd ak kanam guy belli mbégte moo xam ni def na ko ci entraînement boobee mag bu jiitee jaar yoon ay goneem dañu koy topp ca loolee nga xam ne mooy yoonam ñoom ba ma du Dieng topp nañ ko ci li nga xam ne mooy mbégte mi ak yenn nekku seen bopp yan boo xam ne daanaka sunu ko yanoo mën na leen a sonal moo tax ba ne yi féexlu nañ def ndànk tàggatu goo xam ni fii may wax ak yow ci kàttanu ak sunu borom kenn blessé gu ci loole yàlla na jëm kanam Ismaïla Jakobs nga xam ni latéralu gauche bi nga xam ni moo tax daanaka kenn jooyatul latéralu gauche mu taxaw ci entraînement boo xam ni mel ni ku am Sénégal ñaar téeméeri at te gone gi boo xoolee lañu ko woo bu fekkente ni mat na ñetti yoon ca la yem Cheikhou Kouyaté bere woon na di entraîné ngeen gis tamit ki nga xam ni moo nekk euh, doomu sénégalais bi nga xam ni euh, daanaka moo nekk Famara Diédhiou ca kaw di doxal Pape Abdou Cissé ngeen gis ko noonu ci tàggatoo bi Sinou Dieng euh, tamit mi ngi nii dendee ki nga xam ni mooy Krépin jaata ngeen gis leen Pape Matar Sarr fellu ci li nga xam ni mooy kotob ndijoor bi nga xam ni mi ngi toll ci jàng bu baax a baax tey xool ndax moom moomee bokk na ci nar a ñi nar a mujje football Sénégal